salaam salaam sama gaañi a ah, nuyu naa leen kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant fu ay mun a nekk man la ami seen mag seen rakk seen xarit seen soppe a ah, di nuyu itam suma broda yi ak suma sista ya ah, yéen ñëpp laa nuyu bàyyuma kenn a di leen fàttali tam suma youtube channel bi ami seen la gis naa seen support jërë ngeen jëf kontaan naa waaw waaye sama gaañi nama naa leen de waaw kañ waaye man daal démba hmm. maa tase ak benn góor yow góor gi bu ma ko gisee dama ko doon xeeb di mhm. xam nga am na góor ñoo xam ne dañoo sew mhm. ndeke seen sewaay bi yépp affaire baa ngi wàcce si kooy gi mhm. kii buñ demee këram démba daal ah ñu commencé di raayante di fóonante ma ne ah, kii kañ moom xam naa ko dem sa yorul dara dafa suma time rek hmm? waaye gis nga biñ commencé raayante noonu hmm? <laughs> gi di jog ndanka ndanka ma gis rek affaire gi taxaw ma ne ah tey la tey mhm. kii dañ romance ah moccante raayante ma gis affaire gi di jóg ndànk ndànk tempo tempo xam nga laalante moom xel la mhm. am na góor ñoo xam ne am nañ koy gu ndaw waaye xam nañ point lifin yi bajo yi mhm. ak lifin yi johnson yi waaw waaye kii daal koyam bi dafa baax xam nu moo laalee jigéen xam nu moo maree bajo noo digg digg nag am na góor ñoo xam ne moom hmm, maa ngi leen di gërëm de hmm, maa ngi leen di gërëm di leen sant mun nañ seen liggéey mun nañ laalante xam nañ point yi ak Johnson yi bajo yi hmm. man fa suñu góor ñu rek ah ñooñu rek laa dee wër waaw waaye démb ba moom <laughs> xam nga man maa doon wax ne dama fris waaye kii ba ma jàppee dafa jàpp ba jóg yi rek di ci liggéey ma ne ko yow de ha xaw ma kan moo la xaraf waaye su ma ko xamoon dinaa ko delloo njukkal hmm? yow rek ci koy gu baax ah? yow rek ci mar bajo ah waa ji si boppam moo siwlise ah mun liggéeyam mun mar bajo mun katante waaye démb ba moom liggéeyam bi yëpp dama ko fanaanoo sant mhm. ma ne ko yow daal maa ngi maa ngi lay sant di la gërëm mhm. sa liggéey rafet na waaw waaw <laughs> man dama ko doon xeeb waaye afta ma ne ko doy na nag fu mu nekk nii ba jógi sax soo na na mhm. mu ne ma ah doyal nga ma ne ko laa yow kañ maa laa sant rek di la gërëm yow rek <laughs> mun nga sa liggéey de waaye gis nga si biir katante boobu man tam bi ma jàppee kooyam bi ah? ah cum def ma tagga di ma santa di ma gërëm ne ma yow rek si bajo gu saf yow rek si bajo bu neex man na ko bajo baa ngi nii saf saf la def mhm. moo tax gis nga bajo gii ku ko njëkk a ñam def ko ñam rek ba léegi mun tafaate bajo gii ndax lan safaay gi mhm. bajo dafa war a saf neex set waaw nga mun laalante di ko def tempo tempo waaw waaw kaa maa kaa sabajee dorong kaa pempe waaw waaw loolu la bu ñu kenn rey waaw affaire gi daal ni moo neexee ci yow noonu la war a neexee ci man mhm. waaye nekkul ne dafay neex ci man rek wala mu neex ci yow mhm. laalante daal góor ak jigéen ñoo koy def na neex na saf waaw te soo simeeku ami seen simeeku foofu moom hmm? hay ñàkk jom la mhm. waaye ngay laalante rek naan <laughs> waa defar rek waa <laughs> ah, soo soo buggee yuuxu sa doo ñëwee a yuuxu man de man damay ŋàppeeku mhm, man damay ŋàppeeku ŋàlli suma tànk yi ne la baju baa ngi nii di jël bi jalaa ñoo yow yaa ko moom katt ko mhm, su ko defee yow tam nga bàyyee ma sa kooy gi ah, ma liggéey ci ah moccal la ko nga dim waay yow ay waay katante moo nee ah waa ji daal démba gërëm naa ko sant naa ko wa man ngi koy dole njukal di ñaanal nak fan bu gudda ak wér gu yaram ay way waji ji a ah kii mun liggéeyam ci bajjo ah man di di bëgg a go xamne dal da nga way yow xoolal da nga mun sa liggeey wa gis nga so amé sa jigen go xamne dal ma sha allah dafa cage hmm? won ko ne yow tam ya ko gina ciaga wa wa waye nga tim jigen rek ngay yambare hmm ba pare am na ko yoo xam ne ah ndaw ndaw nañ de waaye dañ dee laa lifini nag Johnson yi mhm. because am na góor ñoo xam ne am nañ koy gu rëy waaye xamuñ nag naka la ñoo laalee jigéen mhm. affaire gi xel la tempo tempo waaw na saf na nii bu ñu kenn rey katante kana ko bañ kenn bañu ko man dee démba moom maa doon ut kooy he waaye ki ma dajal démba hey